bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm lu bees xew na ca coowal rapport ya ca OFNAC professeur Cheikh Oumar Anne ma woon ca kuddu façon yéene seetal deram ci dossier bi luubal bi ñu ko tudd tax mu jooytu ko ci kanamu yoon bind ab plainte ngir yóbbu ñamu jàpp ne dañoo yàq deram fa mbaxana doone benn kenn ci ñoom di journaliste bi di Pape Alé Niang yàq der ak lëkkaloo ci saltel derub nit moom la kilee di jëwriñ bi ñu denk ñàng ak ñàngale mu kawe mi Cheikh Oumar Anne di toppee ñetti nit yu mu jàpp ne dañoo dal ci kawam ku ci mel ni journaliste bi di Pape Alé Dia mi fi nekkoon njiitalu kuréelu saytu gi nguur gi ak kenn ci liggéeykatu googule kuréel di OFNAC di wuyoo ci turu Mody Niang ñoom ñett jugé nañ leen démb ci kanamu woy latekat ya ca tribunal correctionnel bu Ndakaaru Njaay li jotale journaliste bi ak ña ca des ak ki nga xamante ne nii moom mooy jëwriñ gi ñu dénk jàng ak jàngale mu kawe mi mooy tudd gu ñu tudd turam ci mbirumu luubale ca biir rapport l'OFNAC ba ak ca biir téere bi nga xamante ne journaliste bi moom moo ko xaatim du peeko scandale au cœur de la république maanaam coow li ci bi journaliste Sen TV bi di Pape Alé ak kile di Mody Niang wéy nañu ci dëggal seen i kàddu ca ba ñu leen laajee journaliste bi wax na ni waxuma ci sama téere bi lu mooy la ñu bind ca biir rapport nag ba bon nag bu fekkee ne dafa jàpp ne dañoo yàq deram na jàpp ne rapport ba yàq deram waaye du man ka ca des di Mody Niang moom itam joxe nab tontom la mu xamle mooy maa ngi dëggal samay kàddu ci li ma waxoon luubal ak jadd-jadd am na ci yorinu kuddu bi nga xamante ne ni kile di professeur Cheikh Oumar moo ko jiite woon ci jamono ji ko doon saytu directrice su OFNAC woon Nafi Ngom Keïta moom jotewul teewee boobule jotaay ndax jotam mayu ko ko te jotoon na itam ab bataaxalu firnde woy kat ya ngir xamal leen ne du mën a teew ci boobule jotaay keneen ki wuutee jotaay bi mooy ki leen fa yóbbu di professeur Cheikh Oumar Anne l'avocat ba ko doon layal moom moo ko fa teewal moom l'avocat ba nag la mu sàkku ci yoon mooy ab ndàmpaay bu toll ci fukk milliards ci suñu xaalis jógee ko ci ñi mu jàpp ne dañoo yàq derup client wam bii de Cheikh Oumar Anne procureur bu moom dafa mujjee rek doyloo ndigal ak ndogal bu nara tukkee ba ca jour bu ñuy joxee résultat atte gi ana fan la wànnent di mujjee ki gëtëm Tactic TV mu ngi leen di toppal dossier lu ci ruus ci xibaar daan ci dellusiwaat ak yéen ñu ngi leen di jaajëfal